على من لا نبي بعده سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه ومن والاه ومن تبعهم باحسان الى لقاء الله ni an bukti a kan kanta da ba ka yi an da ke ganin an akwai sun fi sun fakwai da mawala da shahar islam shahar ibrahim जिन्होंने सारी बाबू खुले के अंदर उन्हें खड़े बार को कुछ ये कौन सा माशाला तो बापू जी पहुँचने की ये शबाब में पहुँचने अंदर तबावी पैमाने का जानना पसंद करने के लिए पता है अल्लाह को जाहिर की बात 对于安德龙的这个记忆，就是从一个东西里面的对于不打吧，几个年龄，几一步路咱们在这里说这个什么，我们在这里几个马斯克的东西这里面，几我们在在从真的是呃神奇，我们这里来在，我们人在吧。 طلب خير السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله وما بكم من نعمة فمن الله سماي بوكي جوليت بولي سين فين مانتناك جادونا ورغل كف كنك سبتور أتسجم أتسملكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حيثما كنتم شيخ أبو بكر آه، ماهي جارتي يوم دلونيو وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يجعل المنيو بيجي مولم اكيبو فاي بتجانيا كبيرة بتجانيو يب مدلا جان لماي ماما جيتر جي كادو بي دي مويو اكزيارة سنو الخليفة مولا الخليفة المعظم سيدي شيخ أحمد التجاني ابن شيخ الإسلام خليفة صاحب الفائدة العظمى di ko ñaanal yàlla wér bu sax ak kàttan moom ak njaboot yépp góor ak jigéen rawatina cheikh Mouhamed El Mahi cheikh El Mahadi wa ustaz kursi tafsir al xadara cheikh Mouhamed El Amin baaba ak noonu al imam al akbar cheikh Ahmed Tidiane ibnu Serigne Ali Cissé xam na mooy imam fayda Tidiane ak noonu it لما التقى الرسمي Cheikh Mouhamadul Mahi Ali Serigne Ali Cissé moom ñëpp njaboot yëpp na ma ko waxee muqaddam ne xulafaaw yëpp leen nuyu leen ziyaara fu ñu mën a nekk ni mu ko waxee ci wax yu gàtt rek te yaakaar naa warta jafe may waxtaan ci bis bu mag bi di bisu tey ba ñeseen te en d'autres termes mën nañu wax rek ne bisu taalibe yi ñun ñëpp ñu di ko waajal di ko fuglu di ñaan yàlla ñu yegg ci jàmm waaye muqaddaman wala en avance ñu ngi ndokkeel xalifa bi beneen yoon moom ak njaboot gi yëpp imaam al akbar ci xew-xewu mag bi ñu jublu ñun ñépp nga xam ne dëgg-dëgg mooy bisu taalibe yi gàmmu gi moom en effet sëriñ bi saxalul fay la moom moo woote woon fii ci Medina ci dëkkam yenoon ko boppam nag de A à Z waaye Tayba nag moom mooy bisu taalibe yi euh, kon dëgg-dëgg gàmmu gi weesu moom sëriñ bi la woon ak i bokkam gàmmu Dakar kazalika sëriñ bi ci may woon ndigal waaye bii moom taalibe yi ñoo ko tànn di ko amal jëmee ko ci seen sëriñ euh, ci taarix bi duma ci dellu waaye daal xam nga wér na Cheikh Hadji Abdoulahi ci njëlbeen bi sax biñ ko waxee xalaat bi xawoon na ci am retenue ndax bañ rek li am ci yenn daje yi ñuy tuddee daje diine ndaxte bi léppam dafa set léppam dafa laab boromam moo ne alhamdulilahi nachaatu taahiran waaye mujj gi bi nga xamante ne nii nangul na taalibe yi pour ñu liggéeyal seen sëriñ may leen digal wax nañ ne dafa waxoon ne xanaa ñu tuddee ko rek kon muy bésu zikrin wa shukrin wala yow mu shukrin wa zikrin Cheikh El Hadj ci làmmiñam te kenn mënul wax tey bañ a seen te tuddoo Cheikh El Hadj ibnu Cheikh al ñaari baat yooyu nag mu tënkee woon bis bi daanaka mooy tax bis bi mën a waxtaan ci wata jafe yow mu dëkk wa sukk fàttaliku ak sant yàlla tey ba it wax ci warta mën a jafe ndax maam alxaji abdullah al akbar warta mën a jafe it ndax mooy mawlid cheikh al islam xaaj ibrahima ñas radiallahu anhu kon ma ne bis bu yomb waxtaanee la Euh, li ma ciy wax euh, mooy gannaaw bu ñu ñaanee yàlla ñu nekk ci ak jàmm yàlla may xalifa bi kattan bu ci teewee ak taalibe yëpp ñëpp ñëw dellu ci jàmm bis bu màgg la bu jara bàyyi xel la bu jara fuglu la bu jëm ci taalibe yi euh, sànq rek lay liir tawassulaat bëri ci sëriñ bi boobu nga xam ne yaakaar naa ne fu mu nekk nii moo dox ci làmmiñ yu bëri muy bi tayiba boobu noonu jiitu ko ilaahi taayiban rabbal ibaadi sax la commencé ma commencé foofu xaafira dunubi wa qaabila tawbi taqbal tawbi bi tay ba jiitu ko ilaahi taayiban xaadian wa taaliban wa xaadian wa ayiba بمنزل مبارك تنزلني وانفع ajri جميع من قصدني أجري فيوض العلم والأرزاق لزمرتي وحذبا أخلاقي ñeenti bayti yi bi ma ko liiree ci bayti bu njëkk bi ma ne sëriñ bi bi muy def muy ñaan yàlla ci xuruuf yi nga xam rabbi anzilni munzalan mubaarakan wa anta xayrul munzilin ci pay ba euh, gi nga xam ne moom la ñuy jublu dama xaw a sax euh, sama sama xel génn ci Taïba rek ma ma xool sëriñ bi li ko yàlla may dama wax ne bayti maanaam moom ay woyam day làmboo plusieurs aspects day wax benn baat la bëgg laa wax benn xabaar waxaale la ca lu xamante ne ni euh, bayti bi sax àttanut ko ci nattale arab xuruuf yi sax àttanut ko ndax sax ñun sax mënuñoo xam lépp lu sëriñ bi di wax ci benn bayti wala ci benn baat waaye mu xoolee rabbal ibaad ni nga ko commencé ma ne foofu sëriñ bi commencé na yonent yu ci bari seetal ci alxuraan ak a bëri yonent buy wax commencé ci rab bi wala ba mu demee ba war am lu mu yaakaar ci boromam jëmee ko ci boppam wala ci aw nitam rabbi rabbi la tadarni fardan wa anta xayru rabbi inni massani yadurru wa anta arhamur rahimin wa zakariya id naadaa rabbi wa yuutum sayyida habu muqadiman fadanna an lan naqdira fa naadaa ila akhir al aya ma serigne bi fi fi fi fi fi anbiya wi wal ulama warasatul anbiya dafa am toujours luy tektale wirasatom gu wér ci yonentou bi ali salaatu wasalaam te ne yonentou moy imamul anbiya yi ay waxam ñep ngay gis ne fi yonantu yi jaaroon nak fa lay jaar ay waxam ak ay jëfum ak lepp bi ne rabbi deja sax mané ne ne rabbi rek rabbal ibaade baatu rabb rek mané hada iqrarun bir rububiyya nanguna na eh, ci ci ci natt ci wax yu yaq sax lay wax ne ne yalla moy yalla bi ne rabbal ibade tamit aqarra bil ubudiyya ne momit ne nanguna rabbal ibade ne allahu huwa rabb wa huwa abdun te jaam bi eh, ba ko yàlla fonkee bëgg koo ràngal maqaama mi gën a kawe ci waxi muy yonentu alayhi salaatu wasalaam médaille ba nga ko takkaloon mooy baatu al abd subhaanallazi asra bi abdihi sëriñ bi tamit mu mel ni foofu mu ngi junj mu ngi jàngale bu bari bi mu ne rabbal ibaadi ghaafira zunubi wa qaabila tawbi ba mu jeex bi ne bi tayba lim ci tagaat mooy bi tayba ilaahi ما أنا خويا وسخ شاو بكر علماء العصر الحديث علماء العصر الحديث سخ tawxid dafa jaar ci ay ci ay maratib ñu tuddee ko al iman ci jamono yonent rek saxaaba yi al iman lañ xamoon ba yàgg baatu tawxid ñëw ba yàgg ci jamono al aqida ñu seddale ko ci ay ngir jàngale tawxidul uluhiya wa rububiya wa tawxidul asmaa wa sifaat même sax naftarit jàddala ne ñu nangu Euh, seddale boobu ñu seddale ko ci jamono ji waaye yëpp sëriñ bi dugal na ko ci ñetti ñaari bayti yi nii tawxidul uluhiya tawxidul rububiya taw wal as tawxidul asmaai wa sifaat bi mu ne rabbal ibaadi tawxidul rububiya wa iqraarun bil ubudiya bi mu ne rabbal ibaadi xaafira dunubi wa qaabila tawbi ba mu jeex mën na tawxidul asmaai wa sifaat bi mu bi tey ba jituka ilaahi tawxidul uluhiya mu ngi noonu même sax ma ne ci xoolal mu mel ni sëriñ bi jamono ji ñu tollu nga xamne ne fi mu ni ni la gaa dooro dugg di di séddale tawhid ci anam boobu ngir nit ñi mëna gaaw gaa nga xam tawxidul uluwiya rububiya wala asma wa sifat lepp sëriñ bi wadal nako ci ci ci ci ci ci ñaari bayt waye loolu nak liñ ci mëna jàngé moy sëriñ bi kana muwahhidan mana sax ci wax ju damm wax ju yaqku waye dal mo ñu jàngal ne sëriñ bi ku wéetaloon boromam la ku gëmoon yalla la dana melni wax ju tuuti waaye nag wax ju rëy la ndax it al imaanu billah mooy lépp sëriñ bi ci la ubbee waxam ci la ubbee nangul yàlla ne moom abdun min ibadillah rabbal ibadi yaakaar ci yàlla liir na sayidna omar ibn alxataab ci suratul gaafir xaamim tanzilul kitaab min allahi al aziz al alim gaafiri dambi wa qaabili taw bi bii sëriñ bi ubbee ci benn lettre bu mu doon bind ci benn waay buñ doon bëgg tegaat ci yoon dafa ne bismillahi rahmaani rahim inni amma baadu fa inni ahmadullahi ilaykum alladi laa ilaha illa huwa aalimul gaafiru uh, gaafiru dunubi wa qaabilu tawbi ma ne xatta mas gi yonent bi salallahu alayhi wa sallam yaraloon boppam ci loxoom bu ñu daan ubbi seen yenn discours di wax ak mbooloo yi ànd ak ñoom daan nañ ubbee lii sëriñ bi ne rabbal ibaadi bi dunubi wa xaabila taw bi te li may wax ni nit mën na ko vérifier ci téere téere yu wér yi euh, benn mu ngi noonu kon man ne sëriñ bi euh, jàngale na gëm yàlla gu mat bu leer nañ moom ci lay nekk njabootam ci lañ nekk euh, comme ci contexte Taïba lañ nekk te ci abyaat yooyu bayti yooyu mu defoon ñaanal Taïba waaye ñaan gi mu ñaanoon it daf ci doon jàngale waale sëriñ bi li mu wax day wax benn bayti ñaan ci yàlla jàngal la ci tawxid muy imaanu billah yar la ci jàngal la ci sa adduna jàngal la ci sax arab dama koy wax bu fekkee arab pox maanaam loxol arabiya pox moo la yitteel nga jàngale ko ci fekkee bayaan wala ba moo la yitteel da ko ci gisaale loolu yàlla koo ko mayoon euh, beneen bi mooy xoolal nag bi mu waxee ci boppam euh, rab nangu ne moom jaamu yàlla la nangu ne yàlla mooy boroomam subhanahu wa yàlla mooy jéggalaakoon ay bàkkaaram ay ay ay bàkkaar yàlla mooy nangu tuub demet demet wax nag mel ni dafa raxas boppam ba set wecc ci waxin pour ndax ñun la doon waxal raxal raxasaale taalibe yi wan leen bunt bi mooy mooy fan lam ca teg moo lay xamal ne sëriñ bi li ko yitteeloon mooy defar nit ñi ndax bi mu ne bi manzilin mubaarakin tanzulu nii lam ca teg rek moy wan fa'huna jamia man qasadani mu melni serigne bi kon mission bi yep rek mo don defal nit ñi mu melni la waajoo waxoon aslah aslih nafsak wadu ghayrak mo taxono jóg serigne defar boppam te moom defar na boppam ba pare ndax yalla ko defar wa immédiatement la mu tek waxut wan fa'huna fa kon daf ne abnaa yi wala sax ahbaab yi wala déedéet fii sax bu ko kenn déggee sax ne ay soppeem parce que jamia man qasadani ku mu mënta doon min si wu jin min xatta min eh, muhib aw munkir waaye ida qasadahu qasad boobu nag moo lay moom moo lay moo jàngal nag ñi muy muy waxal waaye ba léegi il a euh, largement maanaam il a ouvert la porte largement wan faxuna jamia man xasada ni waaye nga jàngee ci ne sëriñ bu yaatu la ku baaxoon la mais nag jaam yàlla yi rek ñoo ko yitteloon bi mu waxee Bimu bimu bimu mu bi mu joxee borom bi limu mom wetal ko ci ay melokan ak jifam lam ci tek man seen batul seen wan faxu ji mem yalla way way defaral ma jami yalla yi ne bi yalla len ci debbi bi wala ci waxam ji wala bok ci ben nga lu yalla rek defaral ma jami yalla yi lepp luñu bëgg rek ci njëriñ yàlla nag leen ko jox kon ñu ngi ñaan yalla tey ba ji yalla yalla defal ñu lolu ben euh ah, mu ñaanal jami yalla yi moy ñu defaru waaye ca bayti ya ca topp ci sama déggin bu gàtt du ne ajri fuyuudal ilmi wal arzaqi li wax zumrati wa hadiban axlaaqi man dama ci am dégg fekke noonu la baax na ma ne ñaan gi mu ñaan ci ne wan fauna jamia man xasadani yàlla na nga defar yàlla na nga baaxal yàlla na nga sottil yàlla na nga jotal képp ku xamante ne ni mu ngi ànd ak ñun jublu nañu te jublu sëriñ bi dama wax du dem tay ba rek ci jëmmu physiquement wala ndi déedéet waaye fi mu ubbee foofu ngay dellu rabbal ibaadi ji foofu ngay dellu ne foofu la sëriñ bi jublu ne nga jublu ko boo ko jubloo te wattabi' la man anaaba ilayya jaar ci moom mu ngi lay ñaanal yàlla defar say mbir waaye dafa mel ni bay bi ci topp mu ngi lay jàngal e, ñun mu ngi ñu jàngal ñun taalibe yi lan mooy defar mbiri taalibe yi wala bokk moom fan lay jaar ba defar mbiri taalibe yi day feeñ ci ajri fuyuudal ilmi wal arzaaqi li zumrati wa hadiban axlaaqi mu mel ni bi mu ne taalibe yi ñaanal naa leen seen mbir lépp baax ñaan naa yàlla moo sa taalibe yi ja àdduna seen mbir baax seen mbir sotti waaye nag mu ne yow yàlla yàlla na nga bëbbal ah, yàlla na nga leen yombalal yàlla na nga bari xam-xam ñeel nañu mu mel ni foofu tam sëriñ bi ishaara latifa mu ngi jàngalaale foofu ne ah nit kat bu fekkee bëgg nga jëriñu bu fekkee bëgg koy jox say càpputéef bu fekkee bëgg nekk jaawab yàlla xaqan rabbal ibaadi mu ne la kon fa alayka bil ilmi xam nga mun mënoon na njëkk a ñaan leneen waaye bi mu la ñaanalee wan faxu naa jamia man qasadani an nafu mel ni daf na la nag an nafu yakunu bi bi ahadil amrayni wala bil amrayni bil ilmi wa ak lam ci teg wa hadiban axlaaqi ak bi xuluqin xasan mu mel ni bi mu ne ajri fi dal ilmi maa ngi maa ngi leen di ñaanal yàlla Euh, yàlla may leen xam-xam mooy nekkoon kon dama nga sàkku ji xam-xam mooy ne kon sëriñ bi ku yitteeloon ci defar jaame yàlla yi lam ci jiital xam ne boo ci bu ci ku ci jaar defaru ku ci jaari defare mooy al ilmu xam-xam euh, beneen bi bi nekk ci diggante bi mooy wal arzaq yi muy muy wërsëg xam nga dama jàpp ne ku la ñaanal wërsëg sas na la encouragé na la nga dem liggéey parce que wax dëgg yàlla tëdd boo tëddoon ci sa digg lal di wér de fukki téeméeri junne yi loo mënta wér de tëdd ci sa ron mbaj yi waxuma ne yàlla du la jox li nga bëgg yàlla mel na lu ko neex mais yow sax nekkuloo exemplaire moo tax sëriñ bi bi mu ne wal arzaaxi rek moom foofu dafa mel ni mu lay wax ne nga liggéey nag kon benn ajidu fiodal almi mooy kon taalibe yi sëriñ bi wax nañu ne foog ñu jàngi am xam-xam bi mu ne ñi tamit maa ngi leen ñaanal wërsëg dama jàpp ne it tamit foog ñu dem liggéey kon pay bi du payu wax lu teggul ci xam-xam ben du payu tok ñak liggéey ndax serigne moo ne ajuri fi yadul ilm wal arzaq way li zumrati lam tag na mu ne wahadiban yow yàlla nak ma ngi lay ñaan nga rafetal sama jikko mu melni kon ñet yi dal bu fekke man nañ ko fàttali suñ bopp fatali ko bokki talib yépp nga xamne al qasidina Euh, li li li Taïba man ci sama dégg-déggin bu ci ñaan yi sëriñ bi ñaanoon ci Taïba yóbbalu taalibe yi daal mooy faal mooy ajru fi dul ilmi mooy ñu dem jàngi xam te fexe wax leer ndax ajru fi dul ilmi sëriñ bi mënoon nañu ñaanal euh, lu ne jiital ko ci wax ji waaye bi mu ne ajru fi dul ilmi man dégg naa ne kon sëriñ mu ne dem leen ngeen jàngi ndax kat moom damay dégg imaam Hassan Cissé mi dégg naa allahu yarhamu muy wax ne ku fi toog naan sëriñ bi sama maam dañ koo sol laaju la ñu wala laaju la sama maam asadaaw daan na ko wax ndax sama maam asadaaw daan na xam fajar ndax mu ngi waaj a jot wala déet ndax sonde li sëriñ bi daan taal euh, te tey sëriñ bi man sama papa bàyyi ne alaaj baaba ba nettali na ma lu bari euh, fu ñu ànd ak bàyyi mu dem jënd téere bi yu xam te ne yaakaaru moom sax ne am na xaalis bu toll noonu te téereem yëpp yiñ ci jot a gis di nga gis lu bari ci biir kayit gi mu junj ne ifham wala muhim wala nangam nangam mooy ne liir na ko page par page kon daal ma ñu déggee ci ne pay bi payu xam-xam la bi mu ci tegee tamit ñaanal jullit ñi ak rawatina taalibe yi wërsëg mooy it kon pay bi payu dem liggéeyi la euh, lu waay mën a woote ci pay bi euh, loo mën a nekk ni ñu koy waxee tey ci ci ci ci ci suñu ran ci mu ci ci ci pay bu fekkee muqaddam nga xawma wala xalifa ak li nit ñi di woote tey lu ci bëree bëri wala muhib nga koo mënta doon sëriñ bi nee la al arzaq risque demal nga liggéey yi warsak moom da ngay liggéey yàlla euh, dimbali la euh, ba topp mooy bi mu ne waxat bi ban axlaaq mooy jikko ju rafet mu mel ni xam-xam bu amee subhaanallah li may wax sëriñ bi ni muy ràbbee arab ni muy ràbbee ay baytam dafa doy waar ni muy waxee ay ñaanam dara amul luy niru hasard ci ci ci sëriñ bi buy wax baat bi muy njëkk yi ak ba mu cay teg bi mu ne wax yi mu lay woon ne la xam bari bari bari bari bari bari bari diplôme boo mënta am ku la mënta jàngal fekkee la sëriñ bi mujjoo wax ak yi amu ci man naa bañ a jëriñ mën na laa bañ a jëriñ mën nga caa bañ a jëriñe te loolu sax um, bu amul jikko ju bu amul jikko ju rafet ba ci topp it wërsëg wi lu mu bari bari bari bu la jikko ju rafet tënkut wala di la gidee sa wërsëg wi mën naa am day nekk ni golo goo amee almet ci àll mooy taal rek euh, daay rek lakk daay rek ci ngay toll te bu ñu seetee sax euh, Cheikh Aboubacar day mel ni euh, tey adduna bi ni ñu koy waxee xam nga ñëpp nangu nañ ne wërsëg tumuranke wu fi tey moom foo wax ñu ne un milliard deux milliards de trois milliards ay nu ay milliards rek ngay dégg kon dëgg-dëgg teeni pétrole yi du xaaj du jeex partout dans le monde euh, xam-xam tamit université yi tey kenn xamut ñaata la ci àdduna bi xam-xam yombul da toog sa néeg léegi sa sa sa nga google loo bëgg xam nga ne nii rek dans une minute loo bëgg mu teew mu teew kon xam-xam tumarankeetul xam-xam tumarankeetul waaye li sëriñ bi mujjee mujjee nga xam ne daf ko boole munoon na ko waxal lépp ma ne xoolal bi muy ñaan sax ci bi mu ne ajri maanaam lu am aadi ajri fi yodraaj moo la arzaq waaye gis nga bi mu ñëwee ba ci jikko daf ne wahadiban noonu taaki dafa dafa dafa gën a feddali ñaanam ci ñi nga xam ne jàng nañ lugal arabia munoon na wax rek ne wahadib axlaaqi waxuma sax ci wàllu woy wi dana ko àttan ak àttanal ko mais sur le plan linguistique ak tamit euh, pour lu ñuy wan ne sëriñ bi jikko ju rafet bu daga noon sax ñu ne moo ko gënoon a yitteel ci xam-xam ak ci warsak ci waxin waaye ma ne euh, mbokk yi sëriñ bi tënkal nañu daal ci ci ci ci ci ci ci woy yi nii mu woy ci rabbal ibaadi ji ba ci bayt bi nga xam ne man moom laa def ne mën na nekk yóbbalu taalibi yëpp ci euh, Taïba Niassène muy ajuri fuyudal ilmi mooy wuti xam-xam pay xam-xam la ñëpp xam nañ li mu li wax ci xam-xam duñ ci dem ci ay détail wala arzaq yi bu ko waxee rek mooy kon nit ñi fokk ñu dem liggéey bàyyi euh, yenn yi nga xam ne euh, sëriñ bi ku ko sori woon la maas gi mu yoroon sori woon nañ ko ñooñu ñañ yoroon luñ sori woon lañ dafa tasaare woon ay muqaddamam ci àll bi ñu dem di bay di dundee di dimbale sax nit ñi da xëy na ma tëjee ci xissa boobu nga xam ne Sayyiduna al Fudayl ibnu Ayyaad la nga xam ne ñu bari moom lañ askanee wax ji euh, taalibeem bu ñëw tàggu ko ne ko sëriñ bi dama bëgg dem liggéey yi daani sama doole mu ñaanal ko yàlla moom Sayyiduna al Fudayl ibnu Ayyaad taalibe bi ñu ne dem laxas ba mu demee ba ci digg àll bi sonn wàcce ay bagage am te ki gawaram di noppalu ci digg àll bi mu gis mel ni picc picc mu pat làggi mu yéemu lool ne picc mi kat nu ko yàlla di dundalee fii mu nekk te moom gisul mënta dem fenn ci àll bu sore bi fi mu toog rek am picc mu naaw ñëw dal ci wetam am lu mu yore woon ci gémmiñam xool ko meneen picc mi moom tamit moom bi mu ne waaw comme àll bu xonq bii nii picc mu làggi mi pat làggi mënta gis mënta dem fenn yàlla di ko tàggatal meneen picc muy naawee fu kenn xamut ak lekk ñëw di ko jox fii di ko lekk muy lekk di naan kon kañ xanaa nit mi yàlla bind moom bu tëddoon ci digg lalamit mu taal climatiseur xanaa yàlla dana ko jox lu lekk ci noonu la wàññeeku bi mu ñëwee ci sëriñam Seydina al Fudayl ibn Iyaad mu nettali xisa bi nag maa la tàggoon dem liggéeyi waaye nag dama dem ba ci digg àll ba gis picc mu pat làggi barhaamu baaun waraun alifun thumma haa